Euh, Maître euh, Diop ñu gis ne yow yaa dirigé euh, première promotion concours aptitude ci notariat ci réew bu Sénégal ngeen nekk nag ñaar fukk ak ñaar yi nga xam ni dangeen doon wane ni rek am na tey ji lu leen metti ci lenteur yi am ci décret présidentiel bi war nag wane ni tey ji nopp ngeen ngir nekk ay notaire vrai ndax mën nga ci ñëwaat. Ah, Euh, ne concours pour nekk notaire benn yoon bu mos a am ci réew mi bi ñu moomee suñu bopp ak léegi mooy indépendance ci 2013 la amoon euh, candidats yi tamit matoon nañu juróom-ñetti téeméer ak lu teg huit cent candidats te ci biir huit cent yooyu yàlla moo dogal ñun ñaar fukk ak ñaar yi nga xam ne ni ñun ñooy collectif ñun la si yàlla boole kenn si ñu admis woon ko donc boo admis concours bi li yoon wax aussi da ngay dem def stage stage nekk na tey stagiaire ci diiru ñetti at boo ñu defal euh, kii sa kayit ñetti at yooyu euh, nekkoon nii rek stage stage bi période jàng la période formation la période dañ lay xool del seet say boo stage bi jeexee sa kayit bu kayit bi mbatee nag léegi nga soog a laaj li nga xam ne mooy nomination ñun ci situation bu lañ nekk depuis deux mille euh, depuis ñeenti at ñi xaar suñu nomination mënuñu ko am te xaar bi yëpp mosuñoo deñ di waxtaan ak suñu autorités yi que ce soit professeur Ismaïla Madior Fall que ce soit maître Malick Sall toujours dañuy waxtaan ak ñoom pour ñu seet solution bu ñu mën a pour pour situation bi réglé wu mhm. mais waxtaan bi aussi waxtaan benn at ñaari at at ba ñeet at nga wax dëgg yàlla te fekk yow li nga yaa ngi jublu si war liggéey war war a fond de famille juróom ñaar at ku ko génn si carrière bi dara du ci des loolu moo tax bi ñu xaaree xaar gisuñu gisuñu solution concrète bu bu bu ñu appliqué si kenn si ñëw ko loolu moo ñu am ne tey jii amul beneen pexe am nga amatul mënatuñ def dara lu def grève de la faim. Mhm. Euh, ngeen wax ni da ngeen di dem euh, ci grève de la faim ndax ñaaw la lu ni mel wante tey jii am na ñi ngeen di dut baaraamu tuuma moo di baron yi maanaam ñi nga xam ne yàgg nañ ci métier bi te bëgguñ caa jóg euh, ndax mën nga ci ñëwaat tamit. waaw baatu baat boobu mu tudd muy baron mooy koo xam ne dafa yàgg ci benn mbir dem ci mbir mi di ci dem ba ci yàgg mu foog ne moom moom ci wàllu notariat am na ay kilifa yu si nekk ay notaire yu baax yoo xam ne mag nañ yàgg nañ ci profession di di ko liggéey ci teg ko si yoon wax bi jubluwul ci ñooñu mais am ñaar ñett ba am na quelques nit yoo xam ne wax dëgg yàlla seen seen at rek moom lañ leen dugusee waaye seen doxalin ci ci suñu digganteeg notariat bi ñun ni seen doxalin rafetul te loolu ñàkk rafet bi yëpp dara waral na ko lu dul ñàkk xam ne jamono lim laaj léegi jamono bi woon mil neuf cent soixante ak soixante dix jamono boobu dafa weesu léegi fi ñu toll mooy tijji pro tijji profession yi képp koo xam ne nii am nga diplôme am mérite bi ñu accueillir la nga liggéey liggéey bi d'autant plus que képp ku ñu jël nga nekk notaire du wàññi dara yeneen notaire yi fi nekkoon parce que état bi fayul kenn salaire te liggéey bi loo ci liggéey wastu ci am mën nga ci am client yi ñoo lay fay donc ñun jotewuñu ak chambre de notaire dara jotewuñu ak ministère dara mais ñooñu nga xam ne duñ chambre de notaire duñ ministère ci profession bi lañ nekk di yàq diggante yi ñooñu moo tax ñuy wax baron yi ñooñu bëgg ñu téye seen loxo ci mbir mi pour liggéey bi ñu war a liggéey ñu mën koo liggéey ci njekk ak yoon. Mhm. Euh, seen kilifa ci wax ji euh, lan la ci joué maanaam ndaxte at mi ngeen di def euh, lii di concours bi ma fàttali ne Aminata Touré ma fi nekkoon comme garde de so tey ji maître Sall Malick moo fi nekk tey ji yenn rôle lañ ci joué ñoom ci coow li ah, non xam nga nguur gi toujours buy bëgg doxal mbir. mbir mi ñi mu concerne par exemple bu bëggee doxal mbir ci wàllu journaliste yoon la ci moom mu laaj journaliste yi jox loolu kenn wedduñ donc bu bëggee def dara ci wàllu notariat yoon la mu laaj notaire mais problème mooy bu bis bi ñu laajee notaire wala nga laaj journaliste yi waroo laaj ñooñu kese war nga laaj ñeneen ñi nga xam ne daf leen concerne parce que nit ki nga xam ne nii dafa dafa doon dara nga koy laaj ndax moo tal lu mujj xam nga ne boo bu seetul diggante muy yàlla du du la wax utal ma utal entre kii ma mujj maanaam ki nekk notaire ba pare nga koy laaj ndax ma jël beneen notaire xam nga ne buñ seetul digganteem ak yàlla doon wax mu ko loolu moo waral ñun suñu jaaxle te te d'autant ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a représenter officiellement chambre de notaire tey jii d'accord ne mais dafa am ñeneen ñoo xam ne ni ñoom seen yoon représenté wuñ chambre de notaire bi doon ñu ko dara doon ñu si dara ñooñu ñoo ñoo indi problème bi di di di bu état bëggee jug heure bu bëggee jug ñu fexe indi beneen problème yéexal bi loolu nag lañ lañ bëgg Euh, ci yar ak teggin ak njëkk ak teraanga mais mu jeex bi ba nga xam ne ni ñun suñu yelleef lañu mhm. euh, xam na ne ci réew bu Sénégal métier notaire moom maître euh, ñi ko xam bëriwul tey jii ñu gis ne tamit ni secteur bi maanaam dañ ko fermer trop dem nañ sax ba concours bi wax nga ko sànq par ñetti at ba ñetti at lay am lan moo waral loolu nga yaakaar. waaw concours bi ñetti at ba ñetti at lay am la waroon a am mais sax faf amul benn yoon la fi am ba tey amaatul. bo li ko waral nag du état bi moo ko bañ a organiser du it Sénégal du it sénégalais yi mooy doomu réew mi nga xam dañu am diplôme droit ñoo ci bañ a am na ñu nekk ci diggante état bi ak doomu réew mi ñoo xam ne ñoo war a jàpp ci organisation pour ma am te defuñu lu leen war ma joxe exemple rek ñi nga xam ne ñoo admis woon concours bi 2013 muy ñun xam nga ne comme admis nañ te ñi ngi xaar ñun suñu ñu ñu ñu nomination tant que nommé buñ ñu concours du mën a am parce que parce que toujours bala nga ne naam nekk fi doo am benn problème ngay beneen problème entre guillemets loolu moo waral ñun suñu problème bi il faut ñu régler ko organiser waat concours bi ba nga xam ne keneen ñeent ñu war a dugg ci profession bu ñu am chance participer concours yàlla dogalee ñoom tamit Mhm. wàllum charge maître te jii dañuy déglu dañuy dégg kàddu googu charge mooy lan ndax mën nga ci ñëw charge bi. ma di leeral rek ne charge boobu. Mhm. kontaan naa trop si li nga ko laaj parce que il faut ñu leeral. Mhm. ñu dañuy profité naan charge amul charge amul charge amul. mu mel ne charge si notariat dafa nekk loo xam ne nii da koy tabax benn montagne boo fi indi la wala kër benn immeuble booy tabax la wala lu rëy rëy looy def te du loolu yëpp du ci dara charge xam nga lu mu doon. bu ñuy nommé notaire dañ koy wax ne. dëkk sàngam commune commune sàngam boobu comme nga ne commune u wala nga ne commune u Guédiawaye wala nga ne commune u commune boobu lañ ne commune boobu moom lañ chargé tel notaire moom lañ wax ne notaire boobu dafa dem installé bureau chargé nañ ko foofu mu installé bureau buñ ko koy chargé duñ ko jox duñ duñ duñ duñ obligé mu tabax fa immeuble duñ du montage duñ fay def du dara dañ koy bind ci kayit gi rek mu daal di fay dem seet fu mu fu mu mën a installé wu foo xam ne mën na accueillir li mu war a liggéey mooy SNFA donc ñun daf ñuy jaaxal il y a plus de cinq cent communes au Sénégal daf ñuy jaaxal heure bu ñu waxee ñu ne charge amul sa veut dire que Sénégal donc amul ay communes am na commune d'autant plus que tey jii boo seetee notariat liggéey wax naa la juróom fukki ñoo ci nekk di ko di ko doxal te ñi si ëpp sax am ñi ngi leen jël yóbbu ci zone yoo xam ne kenn xamul zone yooyu yenn zone te te fii Dakar boo seetloo notaire li si ëpp ñu ngi autour de la place de l'indépendance biir Dakar lañ nekk SLF ñoom ñëpp wër place de l'indépendance te sénégalais yi nekk Kounoune nekk euh, Sangalkam nekk Ngaparou nekk et cetera zone yu mel noonu nga xam ne euh, Diamniadio zone yu nekk en pleine euh, évolution la zone yooyu dañu war a pourvoir aussi ñoo am ay notaires yu bees ñu mën a accompagner politique du chef de l'État parce que nit ñi mënoo leen utal ay kër jox leen ko ba pare te jaaraloo ko fi yoon wax képp kuy jënd si kër te demoo si notaire boo demee si boo boo joxee si xaalis am nga mille chance pour nga sànni sa xaalis donc politique état bi di créer ay cent mille logements ay cinquante mille logements ba pare bëgg en même temps cinquante notaires donc nekk Sénégal yëpp loolu yan wul maanaam mhm. euh, même euh, maître am na fu ñu gisee ngay dénoncer euh, wala sax nga am loo tuddee monarchisation euh, de la fonction euh, lu tax lu tax ce mot monarchisation. dafa fekk boo jëlee juróom fukki notaire yi nga xam ne ñoo nekk Dakar boo ko seetloo ba seetlu boo ñëwoon tey jël liste bi boo ko waxee boo ko waxul di nga ci gis tey sax parce que dafa bëri not nota ci notariat bi ñoo xam ne fi charge bi maanaam li ma la doon wax sànq ci charge commune bi charge bi bi ñu yor di ko doxal boo ko seetloo bu baax toujours day mel ne wàllu famille lay doon il foog que da ngay xool boo seetee bu baax diw sàngam moo yoroon charge bi léegi doomu ma ko yor wala cousin ma ko wala nijaay ma ko wala papa ma ko yor ba ba boo ko dee seet day mel ne affaire bi buñ ko waxee buñ ko waxul am na lu muy nuru tey mm-hmm. junj lu xaw mel ne affaire bi noonu mm-hmm. loolu baaxul ci réew moo xam ne ñëpp si bokk yam profession bi ñëpp si war bokk yam ki nga xam ne am na pap notaire wala amu ko loolu warul warul nekk différence bi li ñu war a xool mooy ba xam mérité nga ko wala mérité woo boo ko mérité jox la même bu fekkee sa papa notaire la wala du notaire loolu changé ci dara encore une fois ñun waxuñu ne ku sa papa nekk notaire waroo nekk notaire parce que nit du tànn fu ñuy juddoo. Mm-hmm. mën nga judd sa waajur nekk notaire wala mu bañ a nekk notaire loolu du dara li ñu wax mooy c'est pas parce que sa papa nekku notaire que yow doo doon notaire wala c'est pas seulement sa papa notaire la kese kese nga war a doon notaire ñaar yooyu yëpp benn baaxu li ñu war a def nii képp mérité nga woo ñu gis ne yéen ngi wax ni bëgg ngeen def grève de la faim ngir euh, ñaawlu rek lenteur yi jëm ci décret bi nga xam ne njiitu réew mi war na koo euh, xaatim tey jii lan ngeen wala sax fan ngeen toll ci négociation yi ak seen tutelle ak lan ngeen nar a def bu fekkee ni daf leen tan xam lu waaw li ñu nar a def mooy dañuy organiser conférence presse mercredi incha allah dix heures bu euh, ñu door li nga xam ne mooy grève xiifal mooy grève de la faim ba keroog ñuy am mhm. négociation yi fan ngeen ci toll. négociation yi moom ñun laa la wax sànq aboutir na parce que ñëpp d'accord nañ ci li ñu war a def mais diir bi ñu ko war a def mooy délai bi moom lañ mënatul xaar mhm. dafa dafa yàgg loolu moo tax waral disposition yi jël pour organiser conférence de presse bi ak grève d'accord ah, tey ji sa dernier mot lan ngay wax sa moroom yi nga xam ni ñu ngi toog ñoom it di xaar ngir rek euh, yëf yi saafara ñu ne ñu toll ci euh, vingt deux muy yow nga bokk ci biir. waaw ñun ñun ñëpp benn lañ ñun vingt yëpp ñu ngi ñu ngi nekk di laaj ñi nga xam ne yaakaar nañ suñu suñu yelleef dong la te laaj ñu ko si ñàkk kees wala xeet kenn di koy laaj ci yar ak teggin mais li may ñi may waxal surtout mooy ñi nga xam ñoom ñi ngi def droit am si ay diplôme toog seen biir néeg que ce soit wala dans le régions seen kër wala ci biir Dakar fi di xaar yàlla may leen liggéey liggéey bi ñu soxla bi mën nañ ko am d'autant plus que liggéey profession yi comme avocat euh, huissier commissaire priseur yooyu yu mel noonu yëpp mi ngi fi doon ay poste a am ay postes yu bees yu ñu war a créer war koo mën a jox xale yi te joxuñu leen ko loolu moo tax ñu leen di woo parce que ñun li ñuy xeex ni dañ koy xeex pour suñu bopp dëgg la waaye dañ koy xeex aussi pour principe pour jeunes ñëpp ñu ngi leen di woo Euh, faculté droit yëpp bu Dakar bu UGB saint bi bu bu Ziguinchor ñoom ñëpp nañ ñëw bokk ci xeex bi rejoindre ñu euh, pour ñu ñu am ndam ci combat. d'accord maître El Hadj Mansour Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa lay jaajëfal soxna si. ma fàttali ne yow yaa jiite collectif des notaires bu première promotion concours d'aptitude bi am ci profession bi euh, concours ba nga xam ni maa ngi fàttali ba ngeen koy def atum 2013 la woon ngeen tolluñ ci 800 euh, te rek 22 euh, rek lañ ci jël tey jii nag ngeen di xaar lu jëm ci décret décret présidentiel bi war a mun leen a samp nag ngir ngeen nekk ay notaires vrai ñu ngi lay jaajëfal. maa lay